Thank you.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 leen tàllal sunu loxol ba fépp foo xam ne sunu jëm mënu fa àgg nuyonteeg yéen saafonteeg yéen leen ñaanal yàlla subhaanahu wa sunu kàddu yi fekk leen si jàmm di jiital si nuyoo yi sunu kilifa sunu baay yu baax yi imaam Baye Cheikh Ahmad Tidiane Niang sëriñ Babacar Mbaye Kër Mbaye Fall Thierno Ahmad Tidiane Tall si barab bi ñu ngi leen nuyu leen ziar leen ñaanal yàlla wér ak wérle ak sutura. yàlla dafa leen saadatu daaren bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu tëdd ci kër yi ak ci hôpitaux yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla wér yàlla fëgg seen bopp bañ delluwaat seen activité ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci ay eh, bitim réew maanaam diaspora bi ñu leen di ñaanal yàlla subhanahu wa taala wattu leen aar leen yàlla defal leen xéewal saawaan baawaan bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa ñëwati nañ ci altina bu jot rek nañ dañ ñëwee ñu ngi ci sant yalla baax subhanahu wa taala bi ñu may ñu fekkee altina bi ñëw indi ay pour jaamu yalla tay bi ñu jëk moy ay ayat alquran insha allah taala ben tour bo xamanteni mag ñi dañ ko teunk ñu tuddé ko laaya dem dik. incha allah laay dem dikk lañ ko tuddee waaw dinañ ko def téere nag def def ko ndomb def ko ndomb takk ko incha allahu taala ko takk bu fekkee da ngay tukki di nga dem dinga dikk te di nga dikkaale incha taala waaw képp koo xam tamit yéene na la xamante ni baaxul wala jëm ci yow dara incha allah dana ko rëccu incha allahu taala ndomb bi daal kaaraange tamit. ubbeeku la bayra la macha allah waaw maanaam dañ ko naan faqa jàmm waaw faqa jàmm xamat boo xoolee xuruf yi xuruf yi boo ko wàññee benn ñeent juróom juróom benn waaw ñu tënk ko ci ayat alquran faqa jàmm xamat fallaahu yuhil mawta mooy faa bi يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير خافهم ويقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير جابي موي جائل الملائكة رسلا علي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير mu topp si miim bi mooy masaw fiihi wa ida azlama alayhim qaamu walaw saa allahu la zahaba bi samihim wa absaarihim <clears throat> ñu ngi jéggalu inna allaha ala kulli shay qadir mu topp si xaa bi mooy xaalidina fiha abadan radiallahu anhu wa radu an zalika alfawz alazim waaw ba ba wa ma fihinna wa huwa ala kulli shayin qadir fa la yem topp ci miim bi maanaan sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir bu mujj ba mooy taabi ñoo naan tombe ñun alpulaar ñu naan taa jorɗo mooy tabaraka bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir waaw bii aay bu nekk juróom-ñaari yoon nga koy bind waaw borom tàkku am na dara bañ koy ëwee mën nañ ko def càngat incha allahu taala ko borom sangoo bu fekkee day tukki bu demee tukki yàlla dina ko wattu mu dem si jàmm du am benn jafe-jafe du am benn gàllankoor yàlla defal ko xéewal yàlla defal ko sutura yàlla defal ko teraanga yàlla wattu ko ba mu ñëwaat si jàmm incha allahu taala waaw ndax alxuraan moom lépp a lépp ngi ci alxuraan incha allah ñu ñëwati ci beneen boo xamante ni kaaraange la moom it allah ci ñaari saari alxuraan yu gàtt mooy ñaari saar yu mujjee si alxuraan mag ñi naan ko mu aw wazatee mooy ñaari <clears throat> ñaari musluwaay yi mag ñi noonu lañ koy wax ñu ngi jéggalu baax waaw mu aw wazatee mag ñi naan ko ñaari musluwaay yi falaki ak naasi benn bu ne da koy bind 777. waaw 777 mooy jàpp auzu waaw maa ngi muslu wala maa ngi moolu incha allah boo ko bindee benn bu ne 777 falaqi ak naas na faatiya bi jiitu ni ma koy waxee toujours waaw man lu may bind faatiya laa jiital incha allah boo paree nga wut déggi sump waaw déggi sump boo mënee am 777 déggi déggi sump fekkee mën nga ko am nga wut ko def ko si saafara si sangoo ko incha allah juróom-ñaari fan boo noppee nga jël dëggi dem suul ko si armeel barki alquranul karim ku la liggéey dina am jafe-jafe yoo xamante ni <coughs> dootu la tal wallaay dootu la tal de yàlla kooku moom képp koo def yàlla dina la wat dina la aar dina la sàmm incha allah ndax jamono ji yàqkat yi dañoo bari waaw da ngay nekk ay doomi aadama doo xam kan moo lay yàqal doo xam kan moo lay contre waaw kon nag ñun moom alxuraan rek lañu am waaw alxuraan rek lañu am amuñu leneen waaw mooy sunu dellukaay incha allah ñi nga xam tamit dañoo am lu réer ñu bugg ko feeñal incha allah ku bëgg feeñal lu réer waaw incha allah yaa xaqu nga jullee ñaar rakk ba da ngay zikar yaa waaw yaa xàqu xàqu nag cent huit lay jàpp da nga koy zikar juróom-ñeenti yoon cent huit fois waaw mu jàpp neuf cent soixante douze mooy adadu ixlaas incha allah wala nga wala bu fekkee tamit <clears throat> mën nga ko zikar si innahu yaalamul jaxra innahu yaalamul jaxra waaw bu fekkee jot bi may na la ko waaw nga ko boo incha allah balaa ñetti fan incha allah lu réeroon yàlla subhanahu wa taala dina la ko niital waaw incha allah dina la ko niital niital bu leer te du am benn jafe-jafe incha allah <clears throat> ñi nga xam tamit euh, dañuy sëy maanaam sëy maanaam sëy ñu nekk si néegu sey di sey ak seen soxna incha allah loo xam tamit day yokk bànneex dañuy jàngale rek ngeen ñu baal mi loo xam day yokk bànneex da ngay wut maanaam wextanu till fekkee mën nga ko am am na sax boo demee si jaaykat yi <coughs> bambara yi dañ koy jaay incha allah nga wut wextanu till incha allah diw ko sa zakara incha allah boo mënee am tamit wextan bu béy nga boole ko ci diw ko sa zakara incha allah kooku dina yokk bànneexu sëy incha allah waaw ku bind lii tamit wisoo ko ku bind li wisoo ko maanaam nga siiwoo ko daal incha allah nga sëy ak sa soxna benn góor dootu ko tiim incha allah góor gu ko tiim yoom ci kàttan yàlla ak mbaaxam faadilun baaxin aajin faadilun baaxin aajin ni ma ko waxee ni nga koy bindee juróom-ñaar yoon maanaam nga koy wisoo incha allahu taala boo ko defee képp ku tiim sa soxna waaw wal iyaazu billah yàlla yàlla wattul boppam ñëw tamit si ñoo xam ne dañoo réeroo waaw ñu réeroo ba nga xam dañ doon ànd wala njaboot goo xam ne dañoo nekkoon benn waaw ñu juboo nekk benn mu dem ba ci kanam féewale ñëw ñu féewaloo seytaane ñëw bañ jaxasoo kii nopp bu garaaw la waaw faatee ngay bind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 ñoom ñi nga xam ne dañoo réeroo nga bëgg ñu juboo nga dugal ko seen tur wala ki nga xam ne da ko soxla incha allah nga dugal ko fa nga wut meewu béy fekkee mën nga ko am incha allah nga def ko téere dugal ko sa bouteille bi dem suul ko boo koy suul rek da koy juutal incha allah ñetti fan <laughs> yàlla dina la may li nga bëgg incha allahu taala ñetti fan rek laa la may li nga bëgg incha allahu yàlla dina la ko may <clears throat> ñi nga xam ne tamit dañuy examen. wàllu examen concours yi allah ñi nga xam ne dañ ci bëgg yàlla may leen ñu at mi incha allahu taala wa rafaanaahu makaanan aliyan da koy bind seize fois nga sangoo ko nga bindaat wa rafaanaahu makaanan aliyan seize fois waaw boo bindee seize fois wa rafaanaahu makaanan aliyan da koy sango nga jàngaat 16 fois wa rafaanaahu makaanan aliyan nga ëf ko si big bi bopp catu big bi ngay examiné incha allah nga bindaat 16 takku ko 16 sango 16 ëf si catu big bi 16 sango incha allah boo ko defee boo demee yàlla dina la may li nga bëgg incha allahu taala ñi nga xam tam dañoo bëgg ay matériel yomb leen ay matériel nga xam ne dañuy liggéey ci ay wàllu machine lu mel ne ay tailleur wala ñi nga xam dañu yor ay moulin wala leneen wala leneen ñu bëgg matériel yomb leen <clears throat> dañuy jàng sura fa di buñ jullee ñaar rak ba sel man ñu jàng suratu taha bu fekkee mën nañ ko suratu taha taha ma anzalna alayka alquran li illa tazkiratan liman yakhsha wa sar wi jeex waaw insha allah matériel yi dina la yomb lool fekkee mënoo ko nga bindulu ko di ko sangoo insha allahu taala matériel yi dina la yomb lool waaw yàlla dina la yombal ay matériel incha allahu taala ndax alxuraan moom lépp ngi ci lépp ngi ci gëm-gëm gi rek moo ci am solo waaw boo ko gëmee loo ci def rek loo ci ñaan yàlla la koy defal ñi nga xam tam dañoo bëgg wàllu bayre tubaab bayre tubaab ñuy jëflanteek ay tubaab wala ñu nekk ci réew tubaab nit ñu weex ñi ñu bëgg bayre incha allah <clears throat> ak du nasraani yi lañ koy wax manam lo xam day japp ay nasaraan ay tubab waaw fa hum jaman mom ngay bind 313 nga bind fa buxital lesi kafara 313 fa hum jaman da ngay ubi fa bi ubi mim bi ubi ayn bi ubi benen mim mim hum bi jaman nga ubi mim bi ak ayn bi waaw inshallah nga duggal sa tour ci kaw waaw dugal turu maanaam euh, tubaab yi nga soxla ci suuf incha allah turu tubaab bi nga soxla nga bind ko ci suuf fa bu hital lesi kafara tamit faa bi danga koy ubbi beneen kafara kafara faawu kafara bi 313 na nga koy bind day xaw a takku incha allah waaw nga bind ko ñoom ñaar ñëpp fa bu hital lesi kafara fa jamaanaahum jamaan nga def ko ni ma ko waxee waaw nga zikar ko nag nga zikar ko ñetti fan fa jamanahum jaman pour buhita allazi kafara ben mo ne 313 ginaaw biñ ko bindé di sango sangoo dugol fa turu ñinga soxla insha allah yalla dina la fajal soxla bo te liñ ci bëgg diñ ko am insha allah ñu ngi nuy abdullah ndur bax moy moy dugal vidéo mi nekk si xarala bi koy nuy di ko ziar diko ko ñaanal yalla wër ak sutura daima ñi wax tamit ñi nga xam ne bëgg istixaar buñ jokkoo insha allah seen xol dina seen dina ler. wax lu leer incha allahu taala ñu wàccee fii si kàddu sunu kàddu lu duuf si nag bi xajul si cin bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.